yëglekaay bopp lañ ci yàndal dal leen ak jàmm coowal milliard jibati na ci géopolitique u Sénégal Bougane Gueye Dany sulli na ay eh, lu toll ci juróom-ñeent fukki eh, milliards ak juróom-ñett yoo xamante ko waroon a dugal ci programme spécial désenclavement eh, koppar googe xaalis la goo xamante ne ngurug Sénégal def ko abbi ca bitim réew nam ko doxaleek fu mu ko jaarale daanaka moo dalul xelu Bougane Gueye Dany ba tax na mu sàkku ci nguur gi mu leeral dossier gi ni mel Mansour la ci nguur gi xam le ne xaalis googeek nañ ko lebeek ca euh, pere ba amul lenn lu ca gàllankoor jaaree la nañ ko euh, fa mu waroon a jaar mu ngi ci Walf euh, Quotidien Bougane Gueye Dany ci 24 heures ne ba léegi programme spécial de désenclavement googule sàkku na ci Mansour fay mu gën ko xóotal leeral gi Bougane jàpp ne daanaka xaalis la guñu abbe ca bitim réew te moo ne de daanaka dañ ko ubbil compte goo xamante ne jotewul ak ministère des finances bokk na ci ne bëgg na Mansour Faye mun cee leeral bëgg na itamit jawriñ gi ñu dénk yooyu la ak juróom-ñett 98 milliards euh, naka la ko nguur gi lebe fan la ko dugal fu mu jëm ndax euh, daanaka saytu nañ ko ci anam yam na mu ware euh, don lu yitteel kandida bi nga xamante ne mooy Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp yéen kaabidi yor yor bi xëy dalal Ali Mouhamed kamara njiital parti bi di MPC sàkku na ci njiitu réew Macky Sall mu teg coowal manda troisième manda ci suuf ndax dafa gis ne jur na coow ci jamono ji te njiitu réew Macky Sall kàddoom jiitu woon na ko xamle woon na na ne du weesu uh, ñaari mandaa na ko jëfee doon na fu Ali Mouhamed kamara bu mu yee mukk uh, fitna ci uh, mim réew di Sénégal mu ngi ci yéene kaabidi yor yor bi direct news xëy amal taxaw seetlu ci Idrissa Seck mi ñu ne bu doonoon tey candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar naka la mbir yi nara demee moom Idrissa sek ndax dina am benn doxalin gi nga xamante ne moom la nguruk soppeek nguruk Macky Sall doon amal na mu jëflanteek maanaam njabootu libéral yéene kaabidi direct news Sall euh, ci Idrissa Seck euh, yéen kabidi le peuple quotidien leer na nañ coalition jot na joge na ci coalition Yewwi Askan Wi bu Ousmane Sonko tàqalekook nañoo ak Ousmane Sonko Khalifa Babacar Sall wa coalition jot na euh, dem nañu jàppale ji njiitu réew mi Macky Sall ak askan wi taxawal seen coalition gu bees gamu gañu duppe yees maanaam coalition Yewwi Sénégal mu ngi ci le peuple quotidien yéen kabidi le soleil ne ndajeb conseil des ministres décentralisé ca Sédhiou la ca tukkee bokk na ci jéego gu mag gi nga xamante xamante ne nguur gi def na ko ngir taxawu seeju ci wàllu paj mi euh, tabax hôpital euh, Ahmadou euh, tiijan Ba ma ñu jota inauguré démb njiitu réew Macky Sall xam le ne lu waaju ci wàllu paj ma ca googule gox di seeju dañ ci taxaw nguur gi dina ci béy waaram ndajëb conseil des ministres googee sax jot nañ caa daganal programme goo xamante ne daal nañ ko doxal ci diiru ñetti at te luñ ca xayma ci koppar toll ci ñeenti téeméeri milliards yu ñu fas yéene dugal ca Sédhiou yéen kaabi di critique ne Sédhiou googe fa la yeewoo moom njiitu réew mi Macky Sall bëgg na bépp projet goo xamante ne nguur gi teg na ko ci table ji ñu koy saytu weer wu jot loole nag la sas gouvernement bi sas ko Amadou Ba jor gi ñu dénk premier ministre bokk na ci la mu xamle ne projet ak chantier boo xamante ne eh, daanaka nguur gi sumb na ko foofee ca Sédhiou dañ ko saytu njiital AGETIP El Hadji Malick Gaye wax na ca mu ngi ci yéen a bi di critique yéen a bi di eh, turbine ne wax ji wax ji mooy njëgu dund gi ba léegi mënagul wàññeeku loolee la ñu eh, gis ci marché bi ba léegi la woon foo askan waa ngi ñaxtu jaaykat yi ñu bari ci ñoom lank ne du ñu jëfee wàññeeku gi nguur gi santaane ci njëgi yéen a ndax milliards nguur gi yëkkati woon ne subventionné na ko ana ban njëriñam ndax ba léegi daanaka amul lenn loo xamante ne eh, jur na ko ci wàllub njeexital yéen cabinet ndax dawul ne jiitu réew Macky Sall moo lajj ci wàññi njëgu eh, dund gi yéen cabinet di l'observateur ne ndax du laajjati eh, ci wàññib luwaas gi weeru mars bi la ñu diggee woon daanaka ñu ngi ci ñaari fan ci weeru mars bokk na ci tamit commission gu bees ga ñu taxawal bu ko samp fépp ci gox yi ngir ñu mun a saytu nees mun a def ba wàññi njëgu luwaas gi Euh, texte yu bees yi nga xam moom lañ ca tënk euh, bokk na ci Momar Ndaw ma ñu dënk googu la commission ak liggéey ga ko cay xaar yéen kaabi di l'observateur xëy duñu ko leeralal l'évidence ne euh, ca port autonome bu Ndakaaru gàllankoor tàmbale na fa nuyu aussi ci njiital Muntaga Si mi jiite port mu ngi ci yéen kaabi di l'évidence yéen kaabi di réew mi quotidien Sitor Ndour ma ne ca kaso Rebeuss gannaaw ab xale bu jigéen moo ko tuumal ne def ko siif yéen kaabi si Sitor Ndour mu nga bëgg a yàgg kaso jafe-jafe tar la fay dund dund euh, wérgu yaramam demeetul noonu lañ koy tuumaal ne dara amu ca bu ñu sukkandikoo ci avocat am euh, di maître El Diouf mi xam le ne complot complot la sax moo am ci dossier euh, Sitor Ndour mi lee mu ngi ci yéen kaa bi di réew mi quotidien yéen kaa bi di libération des ak ñun ci mbirum yoon njuuj njaaj boo xamante ne toll na ci fukki million yoo xamante ne waa ji nga xamante ne mooy Sidi Ahmed Mbagne ñu tudoon ko ci dossier Adji saar feggoog xaritam Abdou Nguer bu Kodas ñoom ñaar daanaka njuuy nañu Dora Gueye mu ñu gëmloo woon ne am nañu dossier wala boog am nañu vidéo Adji Sarr ak Ousmane door a Gueye euh, fayoon ca lu tollook euh, fukki million mujjut a jot ci googu lépp dossier clé USB bu deful dara lañ ko mujjee jébbal moom door Dora Gueye euh, kalaame leen ci yoon ci jamono ji ña ngay wër Sidi Ahmed mbay ak ki nga xamante ne mooy Abdou Nguer ba tey ci wàllub yoon réew mi quotidien xëy duñu dektal Papa Alé Niang jafe-jafeem génn na kasoom nam mu ngi ci contrôle judiciaire yéen cabinet ba léegi mënagul jot ci passeport parquet bi teg na cee loxo bañ ko ko delloo te Pape Alé Niang am na yéene dem ca France ngir mun a faju ji mu ngi ci yéene kabidi réew mi quotidien yéene kabidi stade mu ngi ñuy sajo Sadio Mané gaañu gaañu gamu amoon toog ay weer te mun ta football naka la dunde mondial bi ne metti woon na lool ci xolam bañ a fegoog équipe nationale ngir itamit wone eh, feemam Eh, ci footballu Sénégal ci googu lépp eh, mondial Sadio maane waxtaan gu yaatu gu mu seq ak yéen a bi di stade ñaari mbër yi jot nañoo jokkalante ay kàddu open press eh, gaañu kenn ku ne amal Sadio maane ki nga xam ne mooy Sa jot na amal open press am rëg-rëg naka noonu ay kaddoom ci suñu lamb Sa Thiès diggéene daanaka euh, googu de combat euh, bu ñu jàppante na xam ne bëre ba day jeex euh, bokk na ci tamit ki nga xam ne mooy rëg-rëg tontu na ko ne moo ko dàq bëre moo ko ëpp doole ñaari mbër yi kenn ku nekk tàmbale na rotal ay kàddu la rote ci réew mi quotidien doonul ngeneel jibi jigo lay wuyoo yéen cabinet waajal loo xamante ne day dëkkee di mandi fab ab jaasi nag daanaka topp yaay ja yaa jaddi daw lam ci amoon yéene mooy faat ko ci saasi yéene ne waa jooje mujjee nañ ko teg loxo yoon daan na ko juróom benn weeru euh, kaso ak euh, alamaan euh, jëm ci na mu bëggoon a sànke waajuram bu jigéen yem ak fu ñu jeexale xëtu yéene kaay yi tënk la woon incha allah daan ci dikkaat na mu waaw waaw yow mi bëgg a tabax tabax bu jaar yoon te taarut ak gaaraanga jokkalal waa SAR conciliation et service yi nga xam ne li bépp bâtiment bu tabaxul rek baaxul saa constitution et service daal moo jóg ngir di leen tabaxal ba ngeen kontaan li ma gën a neex si ñoom nag mooy terrain nga leen di jox yaa ñoom daal ba caabi kër da ngeen seex kon ça veut dire lépp ñoo koy restituer lépp loo xeetoo ci kër gi rek ñoom ñoo koy def waa sa construction et service nag mën ngaa jokkoo ak ñoom ci numéro téléphone yooyu affiché ci barre écran bi mooy 77 567 64 58 wala 76 534 16 49 boo jokkoo ak ñoom waa sa construction et service dina la tabaxal ba nga kontaan ci anam bi nga xamee moom nga bëggee jërë ngeen jëf